Botak, linga gëna bëgg liggéey ba lot yónnee ngir ñu jox la gëdd ya gëm naa ni li ngay wuti mooy fii réew maa ngi lu koy sukkali joogu fii gëm sa bopp ngay def bañ xeeb liggéey bu ñëw nga téem yoonu tekki dafa metti nekk sa dëkk moo la ci génne kaay waay kaay waay kaay toog sunu réew billaay I'm not for you, nah Guy, why, guy, why, guy That a new real, well, life. I'm not for you, Salut. Salut. Salut. Salut! Salut! Salut! Salut! Salut! Salut! Attends. Abdel, Salut! Salut! Salut! Salut! Salut! Salut!

Solange Oh, dame Non. Euh, écoute, écoute-moi, dame, s'il te plaît, déclare-moi. ngir yàlla bu leen wax dara sama yaay parce que gëmul ni que man li may def ni mën naa si génn du coup il faut que ma woon ko nii je peux le faire. mais Solange xanaa nga fàttali doom nga fi bàyyi. s'il te plaît même sama pap bu mu si yëg et puis ngeen foog ni que man namuma leen sama doom man chaque jour dama koy xalaat di ko bëgg gis te maa koy jooy sauf que je me suis fixé un objectif te il faut que je puisse atteindre ça Voilà may mën a non attends attends attends kon yow àndoo ak Salif. non dernier moment laa aussi. si ci laa jël xaalis puis pour mën a commencer sama. Bah écoute, au moins je perds pas deux de mes amis. Mais attends, yo, fan nga nek, tu es où Man mangi di pelen, ñom ñoma dalal. Bah xolal, on va tirer ça au clair, yo. Yen boy, quand à vous deux nak, on a parlé parce que je pense que yeen ñaar da ngeen yabaté. Tout ça c'est de ta faute. Lan mo tax nga yow da ak kan mo lu ko wolu won bang koy wodi ko wax yenn ni. da nga xam problème bi après man lan laa ci mën a am Pape. ah Adam. naka mu. alhamdulilah. yaa ngi toog sa garab yaa ngi nii dégg mais tey dama am livraison hors de Dakar. Euh, dina xaw a jël temps mais fii ak guddi dina ma fekk waaye. daam lan laa la def ba naa dem bàyyi ma fa ak kii. façon yow xam nga ni man maa fi nekk jàppale leen ma rek bu leen xeex fii ak may dellu si d'accord on est bon. Ah. sax sa garab yi. bàyyil sama garab sa yoon samay garab. C'est babaye, su doon man rek doo fi mës a jóge mais xam naa ne yàggatul nga dem su ma koy muy jàpp sama Nog heel? Andere leeftijd. qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites là Non, il fallait une Et aussi, dans quelles conditions de vie tu es Ça va très bien. Baby Mini avance tranquillement, Dieu merci. Sinon, un sommeil, ça pape, bébé Sarah. Bah écoute, nous sommes Nous sommes à part parce qu'à instant ñu ngi yaakaar ils t'ont perdu et puis ça toi tu comptes tu comptes rentrer quand. quand j'aurai atteint mes objectifs Bobo Badenadel aussi. mais pourtant su est tout tuuti financement bi affaire bi mën monde gën a gaaw ah. le loolu man mën naa ko defaral sama bopp. non mais non Non, n'insiste surtout pas. Sinon, yo, qu'est-ce que tu deviens Je suis toujours dans les livraisons. Hein. Dame, toi aussi. Non, pourtant, Dame, il a commencé à élargir un peu son business de livraison. Mais pourtant, attends, c'est toi qui produis, non Oui. pourquoi tu gères pas la production Toi, tu fais la livraison à Dakar loolu mën naa ko associé sans toi on a beaucoup de choses à se dire <laughs> Pardon c'est ça Oui. y a gis qui dugg si la tool bi ànd ak Solange gis ni ngeen jege yantoo am quest complicité bi lan moom seen diggante yee ñaar. je <laughs> seeguñu dara mais sama sañoon non. Solange Solange Solange dama ko rek ne je la la sama xol tu ma tu te mënuma si dara euh, ma ma ma ma ngi dem sama sama sama pap m'a <laughs> donc yow am faar ko neub li rek motax dara ci et puis déjà du sama faar mak mom amitié ok. Oui, c'est trop proche de. yow eh doxal. mais xaar sax. Je suis Franchement, je, je suis rassuré. Tant que ça marche, bon, ici, jam, les gens de bonnes conditions, c'est le plus important. Ouais, ça va. Au moins, nous, nous avons un petit l'air, quoi. Mais boy, cette opération, bah, bah, m'a fait quoi. Comme là, il y a mon déflingue, mais tu sais très bien que c'est pas suffisant. Pour ça, j'ai fait ça, pas d'arrêt. Écoute, boy, je dirais pas non parce que genre, je suis là, quoi, mais beaucoup me donnent l'or, je suis là, tu vois au plus vite dama la koy rembourser si c'est le cas. non loolu bu ci ragal. comme que mën dimbali rek bàyyi ma defal lako ko. waaw ah, baax na par contre auto bi maa ngi dégg benn bruit suuf ah. après bu la yeboo soo ko suñu nga nga xol ko quoi. am problème. billahi ya bon. Simon lo def fi mënu ñewon set xale bi yaalla nga de yow man ngay gàcceel ci digg dekk bi sen école ñu woma ma nekkate yow daw jang rek ngay def. pour lan sa film yëfu ya, dof yoy ah ci lolou nga bëgg a yëngu baax na rek du nga bëgg bon demal aduna ngi sa kanam man mi billahi mëno ma toroxal demal rek may sonu ci sey mbir sonu ci yow lu nekk ma def ko tay li nga may fayé waye baxna sa bop lo def rek sa bop kay da ngay iya yàq sama appareil. jëm soxlootoo ko léegi yow sa tànk sama tank, nañ xool. man la laa la def lan moo tax nga bañ ma lan moo tax ma dund sama dund. yow mom, li yëpp yow la bëggatuma la gis ak sama doom dégg nga lu ma la wax si ngay soof ba cim sama dom bi lu mu dugg suba ba ngoon yàq ci dugal waaye nañ dem rek. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa ngi toog. Eh, mm, maa ngi toog bi nga ñëw toog. waaw dañu seetlu ne. di nga ñëwé si dëkk bi ba légui mbay mi yokku da tayit li ñu doon jaayit gën a bari wa dëkk bi yépp ñu ngi gërëm di la sante ah def li ma war rek pap parce que ñëw na fi ngeen jox ma seen xam-xam man tamit ma jox leen lima lima jàng ñu mottalante daal waaye boo may naan ko waa dëkk bi ñu may gërëm dina ma jaaxal loolu ah góor yi daal ñoo si tane te leer na ma ni togg yu neex yi moo tax <laughs> waaw muñal rek doom dinañ la mës a lii ngay def yàlla baax na I'm not for your